Voilà, euh, je m'appelle euh, Monsieur Mamoudou Diouf. Je suis le président du conseil de quartier de Kabotoki. Euh, nous sommes ici présents pour s'indigner du comportement de la dame nommée Awassar. Il s'est trouvé qu'elle s'entête jusqu'à présent pour, pour, pour pouvoir s'accaparer des terres salées de Kabotoki. ce que nous refusons catégoriquement et nous ne laisserons pas faire. Il faut qu'elle sache que ces terres-là appartiennent la, euh, au quartier de Kabotouki. Elle a été sommée d'arrêter, mais jusqu'à présent, elle persiste, ce qui est anormal. Nous voulons juste faire une alerte aux autorités administratives et locale, car cette dame est supposée être derrière des autorités. Parce que, n'eût été cela, elle n'allait pas insister pour pouvoir continuer ses travaux, alors qu'il y a déjà un huissier qui était de passage pour demander à tous ceux qui interviennent ici d'arrêter les travaux. Donc, il y a quelque chose. Et cette chose-là, nous la déplorons. On déplore le comportement de Awassar. Awassar doit arrêter d'exploiter et d'empiéter en même temps les terrains des jeunes de Kabatoki. Ces terrains salés-là, je le dis et je le répète, ne vont jamais être cédés à Awassar. awasar arrête. Monsieur le Président Diomaye Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Premier ministre euh, euh, Ousmane Sonko, nous vous interpellons, nous, la population de Kabatoki, parce que on est en train d'être malmené par une femme qui est derrière des autorités et qui veut s'accaparer de nos terres. Et vous avez, vous avez donné raison à la population qui, surtout les jeunes, qui suppose rester ici, travailler, c'est-à-dire se nourrir sur, le, la sueur de leur front. Et ces jeunes de Kabatoki ont adopté votre politique, c'est-à-dire rester au Sénégal, travailler au Sénégal et faire développer le Sénégal. Puisque nous n'avons pas des terres arables, ces terres-là sont des terres salées on est ici en train d'exploiter ces terres parce qu'on sait très bien que l'activité principale, comme nous l'avons dit, génératrice de revenus, c'est l'exploitation du, sol, du sel. Le sel, c'est de l'or blanc. Donc si ces jeunes-là ont accepté de rester pour exploiter, il, il faudrait les encourager, mais pas de les intimider. Et ils sont en train d'être intimidés, ce que nous n'allons pas accepter. Nous avons di non et nous allons dire encore non et nous allons continuer à dire non jusqu'à justice soit faite. xamante ne ni ñu ngi koy exploiter littoral bi tax na ba jën xaw a manqué léegi jeunes yooyu dañu reconvertir dans l'exploitation du sel maanaam mbay ñetti at yi société boobu dafa ñëw ñu jox ko fi ay hectares pour mu exploiter sel ci peggu waa dëkk bi fi ñuy exploiter problème boobu nag regle woon nañ ko ba pare ñaari at yi weesu nag société boobu dafa dem ci service compétent yi ñu jox ko fa ay parcelles lu mat ñaar téeméeri hectare ak ñaar fukk ak juróom-ñaar téeméeri ñaar fukk ak juróom-ñaar yooyu chef de centre du domaine muy Pape Mamadou Ba daf ne leen ne loolu amul valeur donc mën nañ continuer di liggéey et que document yu ko indi du ci dara parce que amul valeur du yoon ñetti fan yi ci ginnaaw dañu toog ba société bi indi benn pocolin ne ñëpp dañuy déguerpir indi huissier pour déguerpissement ne ñëpp nañ fi jógee jeunes yi nekk ci gox bi yëpp di liggéey nañ fi jógee pour que société bi mën a impacté loolu nag mooy di lu ñuy ñaawlu bu ñu gisee sommation bi liñ ci bind mooy Pape Mamadou Ba bi nga xam ne moo nekk domaine moom mi nga xam ne moom moo bañoon ne document yooyu du ko joxe parce que moom moo mujjee document yooyu na ay pression autorités yi koy woo ku ne di wax léegi ñi ngi laaj Ba moomu ban pression la subir kan moo ba nga xamante ne nii tax na mu signer document yooyu noonu. voilà euh, je euh, monsieur Mamadou Diouf je suis le président du conseil de quartier de Kabotoki. dafa am koo xamante ne ñu ngi koy wax Awa Sarr di benn bi seen ndaw boo xamante mu ngi fi ñëw fekk fi ay xale yu góor ak xale yu jigéen. di liggéey seen doole xorom si mu ñëw mu am ñoo xamante ne ay kàngam lañ buuf ko boot ko jox ko ndigal pour mu ñëw nangu suuf si nga xamante ne xale yi fii la ñuy daan seen doole ñu ne nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te amul lum ñu jaralut comme wax nañ nag ci teggin ndaxte délégué de quartier am na ñoo xam ne waxante na ak ñoom jox na leen ndigal beneen ñoom danañ ñëw fii waxtaan ak xale yi ñu xool nan lañ koy délimiter te ñoom defuñu ko boobu ba léegi te moom UIC wàcc na fi ne leen fi mu toll nii yéen ñëpp na ngeen arrêté te moom mu të xale yi arrêté nañ mais moom mu ngi continuer gis ngeen ndaraan bii nga ci ginnaaw moom moo ko fi indi bugg a ñu ne ko nag du fi amee démb ñu nag ñoom ñu nag moom la tey encore ñu nag moom la te duñ ko mës a bàyyi te duñ ci mës a xaddi amul lum ñu jaralul nag suuf si moom suufu Kabatoki la kaley Kabatoki yi ñoo fiy xel di daan seen doole parce que amuñu feneen fu ñuy dem président président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre euh, Ousmane Sonko ñoom ñoo wàkkirlu jox ndigal xale yi ne toog leen toog leen ngeen liggéey ci seen réew toog leen ngeen liggéey ci seen réew ñun nag comme duñu ay béykat amuñu suuf fu ñu béyee xorom bii mooy suñu tiitar xorom bii moom mooy li nga xam ne moom mooy yore suñu dund kon fii lañuy ñuy wàkkirlu toog di koy exploiter ñu ngi leen di interpeller ñoom ñooñu ñu jàppale ñu noo dañuy bañ li xewoon ndengeleer xew fii wala li xewoon mbaan xew fii kon nag li ñuy wax rekk ate ku ate ku artuwul da ate ku artuwul da ate te loolu la ñuy bañ artu leen balaa ngeen di ate ndaw sii nag dafa dëgër bopp mais dana xam ne population la ko sëqal te population bi ñoo ko gën a dëgër bopp wasalaam. Eh, di wax si problème bi nga xam ne moom moo fi am nii muy problème bii nga xam ne moom la fi awa andi eh, fekk ñu fi ñu nekk fi di daan suñu doole eh, sàccuñ fenuñ liggéey lañ fi nekkee ku ñu xam tamit xam ne liggéey lañ fi nekkee parce que boo xoolee xorom yi jooru si kaw nga xam ne ñi fi nekk liggéey nañ. mënoon nañ fi nekk nag bu guddi jotee ñuy dugg ci kër jàmbur yi di jël alal jàmbur yi mais loolu yëpp defuñ ci dara dañuy daan suñu doole. tey nag bu buñ fi toogee ba awa bugg a ñëw fekk ñu ñu judd fii yaru fii bugg jël suuf bi yëpp occupé ko ñun ñu toog war a liggéey du ñu liggéey ñun jànguñ amuñ métier amuñ salaire amuñ dara suñu doole yi gannaaw yàlla suñu borom moom lañ yaakaar. e awa nag lim ko jaral ba nit ñi bootu ci gannaawam bugg a ko dooleel pour mu jël suñu suuf bi jaral nañu lu ko ëpp gis nga ñun dund ak dee rek ñu jël dund ak dee moom lañu awa fii lu mu fi bañul bañuñu ko fi. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi.